salaam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu khadim ñum ñep di siaran mbokk julit yep ci bis bu mag bi ñi suñu karam wa waccay bi moom amul jafé jafé ci ak liggéey bi ndax lo xam nga am ko dund ay ati ati at japp na bu dé luy mokal war ko mokal ba ba won ko lol lol kon waccay yu du am jafé jafé ci ay waccay lepp ndax ñet ngi taxaj dong la waccay yu njëkk yi am ci jumaa ji avant magal li xew ci màggal gi ak ginnaaw màggal avant màggal moom mooy waajtaayu yi ñuy waajal jumaa ji ci ay defaraat yu yenn yenn yu xaw a yàqu ay ventilo ki ay pii noonu ak tàggat gi ñuy tàggat membre yi ci waajtaay wi ñu war taxawee ci liggéey bi ngir ki def mën a xam lu ñu def mooy lan bu amee rëq-rëq mën ko corriger ak waajal leen ba ku gis ku am gaañu gaañu bu urgent nga mën koo jël. yóbbu ci fajukaay bi ci biir jumaa ji ñu faj ko ak ku gis ku am jaaxle ci wàllu réer wala ku am jaaxle ci wàllu ci wàllu aw nekkiin nga mën ko jàppale ko orienté ko lu moo jiitu woon biir jumaa ji biir màggal mooy ñëw ci jumaa ji def ay kuréel ñi yor wàllu mbale ak set geeg xetal jumaa ji xet gu neex ñi yor kaaraange gi mu ñetti xaaj yi kaaraange goo xam ne nii dañ leen gis ñu ay policier ak ay civil ak kaaraan goo xam ne nii day nekk dañuy sol ay yére yu xidma ay blouse yu xidma wala ay wala ay tré yu xidma euh, am ñoo xam ne duñ sol tëñ sax dañuy dañu dañuy dañuy civilu comme polise yi ak koo xam ne nii moom yorul ay tànk yorul loxo yorul am xel am machine la boo fa mu nekkal nekk yor ay bët mi xoole fépp ci jumaa ji di saytu biir gi bitti gi ak ñun dénk wàllu lépp lu jëm ci wàllu magasin bi dafay ñëw ci ay bagages ñu ngi koy saytoo ku soxla bagage foo jaar jot ci. ak ñi dénk wàllu wàllu wàllu wàllu hébergement bi ak restauration bi loolu nag mu ëmb ay policiers ay sapeurs ay ay ay sapeurs ay croix ay médecins ay membres xidma ay jëmbaram si yëpp lu ma ay ñaari junni nit nga ñuy jumaa ji fukki fan ngir aar ko ba lépp luy worma ñu mën koo def sàmm ko te worma yi mooy tere yi nga xam ne ni sariya moo ko tere ci biir jumaa ak yi nga xam ne nii wa suñu tax ñu suñu tax ñu def ko. te mooy dugg jumaa ji di ziar wàccoog teggin yi bu dee jigéen mu sol loo xam ne nii xatut gàttut yaraaxut bu dee góor mu ci buntu góor ñi sol ko lu ko sol loo bul daw ci góor ci jigéen bul yuuxu bu raay ay bun bu raay ay bu raay ay bu raay dara duggal ci ab yar defal ñaan gi nga xam ne nii suñu tool da koo ñaan da ko wax ne ku may ku may ñaan ku may siyaar si ñaan ko boo ko mënee soo ko mënul nga ñaan lu baax ñaamal ko ñu gis la tamit nga féete ci taxaw wàllum presse bi loolu nan ngeen koy amalee ba nga xamante ni presse bi dinañ mën a def seen liggéey te duñu am benn gàllankoor. waaw yan sart lañ ngeen tëral. ak ñoo xam ne leen dénk ñi ci di sàmm njaay mi nga xam ne dafa dafa ci jumaa ji ndax jumaa ji da ko war a sàmm ci wàllu njaay ba kenn fi jaay lu wuuteeg njaayum bi ñuy wax te mooy noo may kuróom mu jàll rek waaye bul lal bul jaay xar foofu bu la lool bul diiwaan bu fi nekk diiwaan. bul fa nekk def ay vidéo yu wuute ak sart yi bu dee ab presse bi la lin maye may man la boo amee agrément ci communauté de direction soo paree boo ñëwee ci jumaa ji bëgg jël image dan laa noo bëgg nga ne image ñun mën nañ ko joxe de sart bii doo nekk ci biir jumaa ji koo leer jumaa ji naan ko noo gis màggal gi dunu la may tamit koo gis ci ne ko nako waxal ma ci nangam dul la may nga def nga tok def ay plateau dul la may tamit nga photo wu di góor boole ak góor ki jigen dul la may tamit ngay def ay clip yo xam day am ci bir ay xiin wala am tëgg wala ay musique so paré ci li nga def fekk ne gel nañ say say say say donné su guddé am équipe bo xam dañ leen wax ñeneen ñu topal leen site yépp yi ëpp site yi topal leen ko tiktoker yi topp leen ko topp leen facebook bu ku ngeen gis mu wuute ak li waxoon ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen signalé ko moo indi sax tey jii ñu xëyee benn liggéey bu am bu xaw bu xaw a diire mooy koo xam ne dafa dugg jumaa def benn benn lu mel noonu waaye jàpp ne li ci yëpp am naqar léegi mu saafarawu ndaxte li war def nañ ko jàpp na ne léegi mu jeex ba kenn du gisati lool ci ci biir ci biir euh, internet bi pare moom tamit danañ danañ jàkkaaroo moom mu jàkko murid yëpp ñu xam ne daa juum wala dafa nangam ba ñëpp xam ne ñun def nañ suñu warugar waaye nag liggéey boo gis léeg-léeg mu am kuy raas tim ci biir waaye nekkut ak euh, doye dal nekkul ak ñàkkal foog say liggéey bi rëkk la danañ ko corriger te ñoo koy corriger allah. waaw rek teggin siyaar rek ab julit moom bu jógee cib dëkk na day màggal si màggal am na ay ay sart màggal suñu tool waxoon ne. alxiraaw berne la woon dox ak mbokk sikru laaf ndax suñu daa wax ne ñu sant yàlla la waxoon wax nu ko defee wax kuy ziar tamit noo war def kuy ziar si wàccool sart yi rek nekkal ab julli bu bu gëm luy def rek jumaa jumaa ji booy dugg jumaa ci heure julli am na la war bu du heure naafila am na la war bu fi ñëwee heure heure boo duggee jumaa ji biir barab ba am la war te mooy ñaan ñaanal ko ñaanal sa dëkk bi sa sa sama réew ñaanal say waajur ñaanal sa ñëpp loolu mooy sart ñaan loolu moo ci war ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatuhu